aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokk yi jàkkaarlu ñun ci duñu seetaan ci duñu déglu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di ca jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram ba mbooleem ay naalam ak i sumbam mu defee ko kawe njortam waaye itam di nuyu di saar itam mbooleem njaboot ak seexul xadim gépp mbokk yi ñu ngi ci wàccaayu màggal Touba ay waxtu yu néew dox suñu digganteeg màggal gu tedd ki nga xamante ni mooy màggal ak seexul xadim seex Ahmadou Bamba xadim rasul ci Serigne Touba waxoon ni fukk ak juróom-ñett ci weeru safar su dikkatee képp koo xam ni sama mbégte sa mbégte la nang ma santale suñu borom subhaanahu wa taala kon sant googu nag moo tax tey ñu ñëw fii ci kër Cheikh Mouhamadinil Fadil Mbacke ibnu Serigne Modou Fati Xëri Mbacke ibnu Serigne Massamba Mbacke waaye tam bi ñëwee ñu fekk ci kenn koo xamante ni taxawaayam ci liggéey Serigne Touba du sonn du tàyyi mu di Serigne Modou Mbacke ñu gën koo xam ci Serigne Modou Mbacke la ba mu mel ni taxawaay boobu nga xam am na ko moo tax tey site internet yi ak rajo yi. ñu ñëw tey fekk si ko fii mu fas yéene séq ak ñun jotaay waxtaane ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ku ne xam na ak dogoom ak pëstéefam ak bëgg-bëggam ci Seexul Xadim lépp loo ko woos ci sëriñ Seexul Xadim nekkee sëriñ moo du tàyyi du sonn ci liggéey boobee di yar ay ndaw di leen jëmbat ci lislaam waaye itam leen jëmbat ci yoonu Seexul Xadim woowule moo tax ñu fas yéene waxtaane moom tomb yi nga xam ni mooy euh, euh, waxtaane si ku tedd ki ay simili ñu tënkal ñu ko ci gannaaw itam ñaar tomb daañu waxtaane diggante ku tedd ki ak ma somba waaye itam nag ñëw ci taxawaay bi nga xam ni moom am na ko en tant que missionnaire boo xamante ni daa am mission bu muy dox mission bi nag bokk na ci yar jàngale ak tarbiya ak tarxiya ay doomu aadama ba boole leen suñu borom subhanahu wa taala na ko maam yi daan defee taxawaay boobu la am tey kon sëriñ Modou ginnaaw bu la nuyoo si yàlla pare daal lay bàyyi kàddu gi rek nga nuyoo ñëw ci tomb yooyu nga xamante ni moom lañ na ma waxtaanee bisimilah Mbacke Balla. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi sawit ridwaani wa tamkin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din wa dammiran kulla ahda in tudirru bina qabla alwusuli lana yallaahu yallaahu hamdan limun sinil dana wardaa'i wa mun sili sifaa'i wa dawaa'i barkeb cheikh ahmadul xadim sëriñ Moussa jërëjëf maa ngi lay fay di la ziyaare bu baax di nuyu mboole mbokk yi nga àndal yépp su ci jiital soxna maam jaara ak sëñ Pape Alassane di nuyu képp koy dégg suñu kàddu wala koy seetaan ñaan suñu borom defal ñu tawféex ak taysiir mm-hmm. ba lépp doon njariñal sëriñ tubaa lépp doon njariñal lislaam ndax njariñal sëriñ Tuubaa mooy njariñal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njariñal yonent mooy njariñal suñu borom tabaraka wa taala te loolu moo rekk mooy li am solo ci àdduna ndax alxuraan daf ñuy wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni kon jërëjëf ñoo ngi lay nuyu di la ziar di am mbég bu baax ci jataay bi rawatina itam fi ñu ko defee ndax ku ne xam na ni ñi ngi ci weewu màggal te màggal day loo xam ne nii lu rëy la ci yoonu murit ndax sëriñ bee ko digle te defal ko boppam te it wax ne itam képp koo xam ne nii sama mbég sa mbég la bu ñëwatee nag ma ci santale yàlla te sëriñ Tuubaa moom defe naa ku ne xam na ne moo gën a xam luy ak cant moom rawatina ci diggam ak boroomam mm-hmm. ndax dafa liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko mu liggéeyal yonent bi ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko mu liggéeyal mboolem gaa yu baax yi fi nekkoon yépp ba ñooñu ñëpp gërëm ko mm-hmm. loolu moo tax mu ne woon bu ñëwatee na ngeen ma santale yàlla te ak cant nag day lu am solo ndax alxuraan daf ñuy wax ne faskuruni askurukum waskuru li wala takfuruni mm-hmm. na ngeen ma sant man seen borom ndax maa leen sàkk te defalu leen ma dara ma def leen ay mbindeef di doomu aadama kon sant leen ma man yàlla ñaareelu cant ga muy sant leen ma man sunu borom ndax maa leen def ay mbindeef waaye maa leen boole ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sant leen ma man yàlla ñu ne ko lu tax ñu di la sant mu ne maa leen boole ci waa kër ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon defe naa ne cant moom. war na ñëpp waaye ñun muridullahi defe naa ne ñoo war a jiitu ci cant googu le kon cant gi ñi ngi ciy jiital ni nga ko waxee léegi euh, Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke mi nga xam ne moom Cheikh Mouhamadou Fati Xari nga xam ne mi ngi dégg suñu kàddu nga xam ne mooy ja mooy borom ëtt bi di suñu kilifa ci zahir ak baatin te mate ko sakk di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér nuyoo boobu la ñu ngi koy teg ci loxol waa kër Sëñ Tuubaa yëpp ñaan bis bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin lépp lu ñu ci def rek suñu borom nangul ñi jëf ji nangul ñu ci tiyaaba ji te ñu dajee ca ngërëmal ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax sëriñ Touba day koo xam ne kenn xamut lu mu doon ndax moom moo bind wax ne yaqiini yaqiini yaa safihi wasilati huna waxadan al ma sama u tamuru mhm. nee na yow sama boroom tànn tànnloo naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn nga ma man Serigne Touba sa fihi wasilati moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama wasila mooy ajiram mu sama xunaa fii waxadan ak fa ñu jëm waxadan al ma sama u tamuru ba nga xam ne nii daanaka kenn du taal sa bo sa bopp nga xam ne yow ma yafirul maru min aqihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi ila axiril aya sëriñ tubaa nee na ba boobaa tànn naa yonente bi sallallahu alayhi wasallam def ko muy sama défense ci mboolem loo xam ne mbindeef dana ko ragal mag ñi ma àndal ba ko loolu weesoo mu wax ne xulubu jumlati lasina aflahu liyatawajjahat wa rabbil muslihu nee na mboolem xol ñi nga xam ne texe nañu te texe gi nar a jaar ci yonente yi sallallahu alayhi danañ ma jublu man sëriñ tubaa mm. képp koo xam ne texe googu nag jubluwu la na nga xam ne nii jubluwoo ma man Serigne Touba texe googu boo demoon ca Kaaba ga sax di fa wax làbbayka kenn du la wuyu ndax kenn du la daw daje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boo ko ci Serigne Touba day taw tawféex joo xam ne ñu bari sax am nañ ko te xamuñu ko rawatina bis bi ñu ñu ñu nekk muy màggal gi ndax ku ne dégg na suñu jàmbaar yu tëdd ji seex Salihu Mbacke waxoon na ne ne ñaar buñ dendee sax kii fonk ko lool kii kii ñàkk ko mel ne ku nee na saa bu ka ko fa woyefal xëyee day gis ka ko fonkoon ni mu koy rawee saahir ak baatin te dootu ko mën a dab ba faw mm-hmm. kon ñu xam ne bis bi bis bu màgg la boo xam ne yàlla bëgg na ci yonent bi sallallaahu alayhi bëgg na ci sëriñ Tuubaa nee na sax bu ëllëgee bis bi bu jotee sax ñi ne ci seeni bàmmeel danañ yëg ne tey la sama bis ba man Seexul Xadiim kon képp koo xam ne am nga bakkan yor roo di nooyi bu la fi fekkee war nga ciy def loo man ak loo mënut mm-hmm. waaye ñu xam ne itam Serigne Touba léppam jàmm yàlla moo ci jiitu woon ndax moom dafa jox léppam boroomam ci saahir ak baatin ndax nee na jawartullaha bi kitaabihi ilaa duxuliya janna ndax nee na li ñuy wax nafsu ñu di ko tënke nasxado muy nafsu seytaane xawaa di bànneex del gi di duniyaa nee na ñeent yooyu nga xam ne mooy tënk jëng yi tënk doomu aadama nee na suñu boroom tinkil na ma ko te yooyu da koo tënk ci jawartullaha bi kitaabihi ilaa duxuliya jannata mu ne jawartu bil forxaani rabbiyal muhin malaktu nafsiya nee na moom naa sama bakkan man sëriñ tubaa wa sax saxtullahi nee na kay aji kañu rëbb nag sori na ma man seexul xaddim axastu min duniyaahu saadi lil jinaan wan xaadalil hawa wali safar janaan mm-hmm. kon sëriñ tubaa mboolem luy gàllankoor doomu aadama xamal nañu ko wax nañu tam ni nga xam ne suñ ko defee dinañ mën a teggi pàkk yooyu te loolu wax na ko ci bunt yu baree baree baree bari loolu bokk na ci it li mu wax nga xam ne moo ko bindal boppam wax ne lil Moustapha na waytuma yu jaddidu sunnatuhul xarra indi inni ahmadu kon daal sëriñ tubaa moom kenn xamut lu mu doon yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla dimbali ñu ba saa suñu xëyee itam di xam wan yoon lañu wan a mën a jaar ba am ngërëmal Serigne Touba ndax suñu jamono ji ñu nekk day jamonoy coow coow yi dafa bari léegi-léegi dafa bari lu ñuy boole ci yëf yoon wi ñaare yu ci ëpp ëpp te day xaw a doy ci kon day mat a xam bu baax a baax a baax dëgg-dëgg fan la ñuy teg suñu tànk foofu nag mooy ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina anhamta alayhim xayril maghdubi alayhim wala dalina mooy fa ñu teg war suñu tànk rek mooy yoonu siraatal mustaqim ndax yoon woowu rek la yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon woote yoon woowu it la Sëriñ Tuubaa ñëw di ko feddali yoon woowu nag day yoon woo xam ne da léeg-léeg ma wax ko ñi may àndal mbokki taal dama leen wax ne yoon woowu du yomb ndax yonente bi sallallahu alayhi wa na ci alxuraan daf ko doon wax ne ama xasibtum an tadxulul jannata wala ma yaatikum masalul lazina xalaw min xablikum masathumul basa wa darra wa zulzilu xata yaqulu rasul wallazina amanu maahu mate nasrullahi ala inna nasrullahi xaribun mm-hmm. dafa eggoon ci ñi ànd ak yonente bi naan ko yaa ngi naan ndimbalul yàlla rek dana ñëw yaa rasulillah kañ la ndimbalul yàlla di ñëw bés bu set nga ne dina baax kañ lay baax aaya ba doog a wàcc nag isaa jaa nasrullahi wal fath wa raayta nnaasa yadxuluuna fi diinillaahi afwaaja fa sabbi bi hamdi rabbika wastaxfiru innahu kaana tawaaba kon saa boo jógee jëm ci yàlla rek seenul nattu seenul tiis seenul ay balaa yoo xam ne yàlla mën na la koo teg ndax dana nattu jullit bi ba xam li muy wax ci diggam ak boroomam ndax dëgg la wala déet mm. kon moo tax toujours dama ciy soññ mbokki taalibe yi di leen wax ci nañ saxaw muñ ndax Sëriñ Tuubaa mboolem lu mu am rek muñ da ko cee bokk ndax ba muy dem kat wax dëgg yàlla su ko neexoon du dem ndax ndax amoon na ay jumtukaay waaye daneen man may na nama dalub lislaam bi sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jàmm waa yan ban yonoon xut bi ak labdaat yi àtta nañu ko bàmbaako ne cas fab raw gaaya dëngañ di way tatawatul ya kon xam nga ne loolu muñ moo ko may Sëriñ Tuubaa kon nanu gën muñ gën a gën a dal gën a xam kan mooy sëriñ Tuubaa gën koo gëstu bu baax a baax a baax ndax bu ñu gëstoo sëriñ bi rek tegu ci njàngaleem jafe-jafe yi at réew mi waxuma la sax Sénégal waaye àdduna bi jafe-jafe yi nekk yépp mën naa saafaraw ci njàngaleem ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul te loolu bërki démb rek gis ngeen ko Masaalikul Jinaan la fa Cheikh Mouhamadou taxaa def te yàlla na fi yàgg te wér nga xam ne sëriñ Tuubaa ci boppam nee dana yëg ne ñëw Cheikh Mouhamadou Mountakha di Sëñ Touba dem dakaar def fa loo xam ne ñu bari sax xamuñu impact bi mu am ci senegal ndaxte dafa am ñoo xam ne toujours sax dañ ciy wax di wax ne lan mooy jàmm ndax jàmm jar na waaye dañu xamut lan mooy jàmm. am na ko ko masalaaj Sëñ Touba ne ko Mbàkke dama bëgg nga wax ma lu gën ci àdduna sëñ bi ñett yoon nangu ko tontu. ñetteel ba ba mu ñëwee sëñ bi ne ko de ah man de fii ñu ne ak fa ëllëg yomal xiyaam fu ne xool naa fa gën jàmm. diw mu ne ko mbàkke mu ne ko foo tollu te del ñaan jàmm fi ne yéen wax yëpp lu ci ëpp jàmm tax ñu di ko def ndax dañ koo tal te jàmm ju du kenn ku dul ko tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul kon mun Muntaxa loolu rek wane na yoon woo xam ne suñ ci jaaree mën nañoo noppalu fii ak fanu jëm kon xëy na kàddu yooyu rek sëñ Moussa laa bëggoon a ubbee eh, xëy na bis bi xat na gis nga mbokki taaliba yaa ngi taxaw eh, ñu war a ziyaarante ak ñoom am naa la ca ñu mën cee daal di jublu xëy na la ci des defe naa am na loo la yeneen yoo laajoon sax dama ubbee ci màggal gi rek waa ci diggante sëriñ Touba ak sëriñ Massamba waaw loolu dafa nekk loo xam ne sëriñ Massamba ak sëriñ Touba sëriñ bi sëriñ tubaa la kenn xamut lu mu doon ndax moom nee na man yàlla rek a ma xam nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ma soppal boppam. ndax nee na yonent bi mooy ñaan yàlla ne ko jox ma Ahmadou Bamba mu doon sama soppe nekk sama xadim rasulillahi teyit boobu noonu ab leetar ne xaadim rasul màkk am na madina am na fépp am waaye duñ ko indi fenn fu du Tuubaa gi kon xaadim rasul yàllaa ko defal sëriñ Touba waaye ma sàmba day koo xam ne da daa kenn ci Serigne Touba. ndax am na dégg nga kilifa gu mag nam ko waxee dafa waxoon ne bam borom daaru yi loxo ndeyjoor ba moo koy leel waaye Masamba yi loxo càmmoñ ba moo koy laabal sëriñ Masamba nag di koo xam ne dafa am particulièrement dafa am ci sëriñ tubaa lu jafe rawatina nag ci wàllu mbindum sëriñ Touba sëriñ tubaa da koo jëloon jagleeloon ko ko mu doon rakki sëriñ Touba doon xaritub sëriñ Touba doonoo nit ku déggoo sëriñ bi ci saaxir ak ci baatin sëriñ bi sax dégg nga sëñ Moussa Ka ne keroog la Seex Bàmba fatu sax ne maa ngi ci xalwa waaye yow sëriñ Masamba bis na tey yaa ngi ci wa ko am looy wax na nga ko jox wax sëñ sàmba ko am looy joxe it na nga ko jox Seex Masamba mm. dégg nga mu dem ba ci biir sax am na ci fu mu ko waxee sax ne ko ne yonent yàlla yow nga ba fi sëriñ sàmba ñu di ko rey te di ko xoole Seex Bàmba yonent yàlla dimbali ñu ba fi sëriñ Masamba tubaab bi daan nañu wax kii niróo na ak Seex Bàmba mm. nee na sëriñ bi jiitu ko timis waaye gént ga nee na bi mu ko defee julli ga eggut nee na bi ñu demee lu yàgg sëriñ ma sàmba gane ci dëkk booba ñu mu yëg na ma nga fa nee na mu dem ba waxtu wi jot sëriñ ma ne nañ waaj daal di laaj seeta la waaj daal ne allahu akbar ba mu taree faatiya julli ga eggut mu gis ko nam ko gisewoon ci sëriñ Touba moo xam ne kii mooy sëriñ Touba nga xam ne sëriñ ma Masamba léppam day sëriñ Touba ndax sëñ tubaab moo ko jox aw tur mm-hmm. dégg nga sëñ Moussa Ka ne la keroog lañ ñaari yoon la Cheikh Massamba Cheikh Bamba masa tim te jàppul ñaari yoon la Cerno masa tim te jàppul te amee ndox fay na ko keroog ba mu santoo seex Cheikh Bamba ñuy tuddi caat ma sëriñ ma sàmba ak keroog ba mu sancoo koso ñuy rooti at ma mel nem kaso kon sëriñ ma sàmba sëñ Tuubaa moo ko jox aw tur ndax bi mu ganee sëriñ ku tedd ki dafa sëñ Daam Abdourahman Lo ak borom daaru ne ñëw leen gunge ma ma laaji sunu borom ñu gunge ko mu dem ba ca barabu sëñ moor Anta wàcc fa siyaar ñaan ba noppi def fa ab diir génn ne ko cerno mu ne ko mbàkke mu ne ko ah borom de moo xara yàgg naa fi de tuuti mu ne ko waaw mbàkke mu ne xam nga lu ma doon def mu ne ko mbàkke boo ma ko xamalee ma jël mu ne ko ba sama waajur sëñ mbàkke Mor Anta laay laaj kenn laay tuddee ganam gi giy gane mu ne ma ne boo demee ne ko na mu ne ko boo demee na ko tudde bàcc ant ceebo looloo waral sëriñ Masamba fi mu nekk laasan ba boo ko déggee sëriñ Touba ci boppam moo ko waxoon daan ne mahasan ba kiy far bàkkaar yi mooy sàmba waaw nga xam ne sëriñ ma sàmba dañoo wax ne jukkoy malaayika la yoroon sëriñ bi jox ko tur jàngal ko yar ko def ci moom saaxir def ci moom baatin te musta tàggoog moom itam sëñ ma sàmba fi sëñ bi nekk lépp musta moom dara musta yor dara musta yilif fenn moom sëriñ bi rek la xamoon xasida yi itam nga xam ne xasida yi Sëriñ Tuubaa wax ne lifaa i wa ibuxaa i wa fawsi bila xanan bi kaw nii xadimal Mustafa tatabayanu wax ne sama wax ci xasida yi lu baree baree baree bari yoo xam ne sax mëne su ko xalaata wax te te xasida yooyu sëñ Tuubaa da cee doyloo woon sëriñ sàmba wax ne xasida yi ci seen bopp ñoo ma jàmbat ne ma soo su su noppeetee ci yow buñ dem ci loxol kenn ku ma sàmba mm. mu egg ci sëriñ bi bind wax ne faasat xayaat yi faasat texe na sama xayaat yi sama dund man sëriñ tubaa nee na bi xayaatillaahi ci biir dunduk sunu borom nga tabaaraka wa taala nee na waaye ba noppi man sëriñ Tuubaa xabdan may ab jaamam xadiman di aji liggéeyal ko xabdan xadiman nga xam ne loola ci teg li xalilil ilaahi ba noppi di xaritu suñu boroom te mboolem xaside yooyu li ñu bari bari li ci ëpp ëpp ëpp bu ci sëñ tubaar Tuubaa noppee rek danaan ma Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko bisimilahi sëñ ma Masamba mooy maas mooy suqi mooy jekkal te dara du ëpp dara du manqué dafa mel ne café gi nga xam ne segg nañ ko rek bu ko seggee ba noppi ne ko bisimilah mooy sukkar mooy def jar mooy def lépp te dara du ëpp dara du manqué kooku moo doon sëriñ Masamba nga xam ne moom jëmmi malaayika la yoroon ku amoon cër la itam ci sunu borom waaye dafa jël cër bépp jënde kook taalibe ndax yoon yu moom Sëriñ Tuubaa nee aw ma jarbaat aw ma ni aw ma aw ma aw ma aw ma rakk aw ma ay doom waxoon na ko sëriñ Masamba sax la ko waxoon ak sëñ Mor Roxoy bu sa ak Seex Mamadu Faadal ne leen aw ma doom aw ma jarbaat aw ma rakk li ma am daal mooy ku wax aslamtu nafsi ku ko ci def it la loo bëgg ci man dinaa la ko defal àdduna ak alaaxira ñu jaay seen njureel ñoom ñëpp jënd kook taalibe moo tax Seex Mamadu Faadal mu baax ma sax euh, gis nga ni mu amee xaas ci sëriñ bi ndax moom it dafa teel xam ne rek ak taalibe moo fi maye mu jël boppam jox ko sëriñ bi wax na am na ci ko boo xam ne sax dañoo dem ba nawet bi xaw a doy waar nga xam ne xaw naa gëj a taw lool maral wi ñu bari tiit sëñ Modou Moussa woo ko ne ko Mouhamadou Fadal mu ne ko Mbàkke mu ne ko demal ci sa waajur wa ndax xaritam nga boo demee wax ko yóbbante bi nañu ñaanal nee na Cheikh Mouhamadou Fadal bi ak say sëriñ bi yëglu ñu ne ko bisimillahi mu wax yóbbante bi ne ko Mbàkke bëgg nañ ko ñu ñaanal mu taw sëñ bi ne ko incha allah ñaan ba nopp mu génn mu ne nañ dab sëñ Fallou ñu dab ko mu ne ko boole naa la ak ki ndox mi rek su ëllëgee boo ko soxlaatee rek woo ko rek mu def ko moo tax saa bu ñu masaan a jàq rek bu nee na na taw rek mu daal di taw loolu suñu borom moo ko joxoon Cheikh Mamadou Fadal léegi-léegi nag nga dégg ñoo xam ne loolu daf leen di jaaxal te xamuñu ne Serigne Touba dafa wax ne yaral xafaaya bi xaynil xal bi saahiratan kama yu saahidu ma tatal ak inaati nitu yàlla loolu du dara ci moom ndax sunu boroom soo ko joxee sa bopp rek mu jox la boppam fi mu nekk nii boo demoon ca palais ba sax am na ñoo xam ne amuñu fa frontière fu leen neex la ñuy dugg fu leen neex la ñuy génn yàlla moo dul ay caaxaan te ñoo ñooñu dañoo jëloon si lépp jox sunu borom ba sunu boroom déggook ñoom si ci ci lépp zahiran wa batinan kon kooku mooy sëriñ ma Masamba sëriñ Tuubaa nag ni mu def sëriñ Masamba noonu la defoon Cheikh Ibrahima ndaamal daaru mooti nga xam ne moom mooy le naa de Cheikh Ahmadou Bamba ndax man itam soo nee sëñ Massamba da ngay wax daaru ndax daaru laa dëkk léegi yow sax mas nga ma ko laaj di ma laaj lu tax nga dëkk daaru nga xam ne Sëriñ Tuubaa amul frontière daf lay won ne daaru daaru Karim ak daaru joo fi teggi rek borom jumaa ja ko waral ku tedd ki muy daaru salaam ak gis nga daaru salaam sëriñ bi bu mu boo jàngee la retour de Cheikh Ahmadou Bamba bi mu jógee daar ci géej gi dafa woo maam si ante ne ko séentu ma yaa may ganale woo borom daaru ndar ba mu ñëwee maam Cheikh Anta gane la ko ba noppi wax nañ ne daanaka ñaari weer la fa def mu ne ko may naa la dëkk bi nit ñi di ci wax mu ne ko may naa la dongo yi fii ne nga xam daanaka matoon na téeméeri nit googu baax moom monsieur suuta dégg def ko du Serigne léegi-léegi sax ma waxtaan ceeg nit ndax dañuy faral di wax sëriñ bi ak yi mbokkam ma ne leen dafa bokk sax ci kiimaani Serigne Touba yi gën a rëy mbokki Serigne Touba yi ndax man de benn yonent laa xam yàlla def fereeram nga xam ne ni moo sàkku suñu ñu def ab rakkam yonent te ko mooy Haaruna te ka ko ñaan dafa ne wa axi Haaruna huwa afsahu minni lisaanan fa arsilhu nii indi yusaddiqni inni axaafu an yukassibuuna fa ma jëm ragal naa fa ndax tey sama awma fasaha bu ma waxee duñ ma dégg kon bu ma sañoon sama Haaruna mi doon yonent yàlla ne ko nañ def décret bi bu subaa ànd leen yonent def doon na yonent bis na ko tey sëriñ Touba nag nga am mag ju mel ne sëñ Mamoor Jaara ci saayir muy naa naafila alxuraan ñaari rakka guddi gu ne am rakk ju mel na la leet naar Cheikh Ahmad Bam Maam Cerno Ibrahim nga xam ne yóbbu nañ sëñ Touba juróom-ñetti at dara yënguwul egg nañ ci sax bi sa Touba sëñ bi see sax ba jóge gànnaar egg nañ ci sax bëgg a delloowaat sëñ bi ci géej gi boroom daaru fexe ba dara amut lépp dal kenn xiifut egg na ci sax tawat am ju ñuy wax mbas joo xam ne si am na ci njabootu sëriñ bi ñoo xam ne tawat nañ ba boroom daaru jaaxle ca tiit ci daal di taxaw ñaan suñu borom ne ko boo naree tey jël kenn njabootu sëñ Tuubaa ci man seex borom daaru Muxti ak ci sama waajur ak ci Modou Awa Balla ak Seex Balla ba ñu jeex tàkk waaye ma sëñ Tuubaa dénk bu ci dara jógati bokk na ci kiimaani sëñ Tuubaa yi gën rëy mooy ak njaboot ay rakki boppam ak i mbokkam ni ñu toppee sëñ Tuubaa loolu kenn mësu koo am ku dul sëriñ tubaa te ñoom ñëpp noonu la leen sëriñ bi defaree kon digg sëriñ diggante sëriñ Tuubaa ak sëñ Masamba sëñ Moussa xam naa loolu rek ci tënk ndax waxtu wi xat na laa ci bëggoon a bëggoon a dolli rek xam naa waaw ba ba ba ba beneen incha allah ba ñu gisee waat waaw waaw. dëgg la waaw loolu day moom liggéey bi moom liñ ciy jublu rek mooy yaatal liggéeyu sëriñ Tuubaa bi. ndax bokk ci Sëriñ tubaa moom dafa di loo xam ne kenn mënu koo fay bu la ci yàlla boole nag li la war mooy ak koo mën a doon góor góorlu di xeeñtu yoonu Sëriñ tubaa Sëriñ Tuubaa nag waxoon naa ko léegi dafa wax ne lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul xaraa indi inni ahmadu nee na li fi yonente bi salallaahu alayhi wa bàyyi woon mboolem lu ci nuru lu ràpp man Sëriñ Tuubaa moom laa ñëw di ko yeesal ndax mu jaddit la moom yeesal googu nag moom ñun ci lañu fas yéene ñun itam tekki suñu tànk xam ne na duñu kenn dunu lenn waaye ay jaam dong lanu waaye ñu di ci bay suñu waar rek ci yoonu siraatal mustaqima moo tax ñu lancé woon daaira boo xam dañ ko tudde xidmatul xaddim am nañ ko nag fu bari ci réew mi ak ci biti réew am na ñoo xam ne tam ay ndaw lañu ñoo xam ne léegi-léegi dañ leen gis ci yenn barab yi buñ leen gisee ànd ak ñoom fexe ba dugal leen ci yoonu Serigne Touba bi ndax ku tedd ki moom boo ci woon it fexeel ba mu ñam ko rek su ku tedd ki daal sukkër la waaye bu ko nit ñamul nag du ko mën a xam waaye boo fexee ba mu tàqamtiku ko rek dootu ko bàyyi fi mu ne ñi nga digg ñu bari ñuy wax ci Serigne Touba wallahi wal Qur'an azim dañoo umpale sëñ bi rek waaye Serigne Touba ku bëgg lu baax doo ko xam di ko bañ moo tax man moo tax mu wax ne daxaani li madh bu hubbu saatihi moo tax bëgg googu nag mu bëggoon yonente bi sallallahu alayhi moo tax ku bëgg lu baax rek bëgg ko ku bëggut lu baax nag kenn xamul ci yow di leen tàggat di ànd ak ñoom ci dëgg ndax alxaqu min rabbikum fa man sa saa fal yumin wa man sa fal yukrim kon dëgg rek mooy li am solo toujours itam dama leen di wax ne alxaqu saabitun wa amal baatilu wa inhala fa saaxixun wa saafil sëriñ Tuubaa neen dëgg rek mooy jëm kaw soo ci nekkee nag njëlbeen gi day metti waaye nee na del xool ci kaw rek yàgg-yàgg say mbir danaan jëppit jëm ci kaw waaye nee na soo nekkee ci caaxaan njëlbeen gi day jëm ci kaw loolu waaye del xool sa sa bët ci suuf yàgg-yàgg ci suuf nga koy jëmale moo tax njaboot gi saa su ne ci ñoom laa ànd ak ñoom di ci yëngu eh, am na ci mbokki bi ñiy toog rek fi mu nekk ñii ñooy waa Kaffrine am na waa dakaar foo nekk daal bari nañ daal ci ci ci ci réew mi loolu itam tax na sax ñu am bis boo xam ne dañ koy def muy le 31 décembre nga xam ne xale yu bari maak ñoom dañ ci daan ànd eh, di ci di ci liggéeyal sëriñ bi ñu ci bari itam daan ko feetee neneen di def yëfi zahir ñu fexe nag ba di leen ci ñor di di leen jéema woon sëriñ Tuubaa ci biir loolu aussi am nañ daaray alxuraan joo xam ne maa nga daarul moxti am fa kër goo xam ne it fa la ñuy liggéeyale Serigne tubaa ndax yooyu yëpp dafa bokk ci jumtukaay yi nga xam ne nii jamono moo koy laaj ndax nit soo ne ko bàyyil dara rek danga naan ko jàppal lii kon ndaw ñi moom suñuy activité li ci ëpp daal mooy ci sëriñ bi minal xaddiimi ilal xaddiimi mahal xaddiimi mooy bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci sëñ bi nekk ci sëriñ bi rek foo ñu fekk nag loolu rek la léegi-léegi man naa defee ne leneen la waaye su duggee ci biir rek xam ne lii rek moo fi nekk te loolu lépp ñu ngi koy def it ci ndigalul Cheikh Mamadou Fadal ndax fi mu ne moom mi ngi ci kër gi di suñu baat waaye man wóor na ma ne duñ def dara bam àddu ci ndax ne ne suñu lépp yàlla rek tax ñu di ko def ak jëmmi Serigne Touba moom itam ñu di ko sant di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fi ndaxte kilifa gu mat kilifa la kilifa gu mat kilifa la ku ku ku amuk taalibe la léppam ak taalibe la dama naan sax su la su la yàlla dimbaliwut sax man ngaa gaañoo ci moom waaw moo tax ñoo ngi koy sant di ko ñaanal di mu yàgg fi lool te ci barke Seexul Xadim tout tànk yi itam saa su ne dama leen di wax ne leen euh, yoon yu moom euh, royukaay bi ëpp daal ci man mooy ma roy maam sa Ibrahima làmp Lamp mori dina ndax dafa am tawféex ci sëriñ Tuubaa ndax dafa ñëw xam ne moom sëriñ bi ak taalibe rekk a ciy maye dara mu jël boppam rek sóob ko ci dib taalibe sëriñ Tuubaa te mu sa boole ak taalibeem ak lenn kon moo tax moom dama naan leen fu ngeen mën na ne nekk leen i Baay Faal rek te nekk ay saadix ndax Seex Ibra kat sëriñ bi mas na ko woo di jàngale ak taalibeem Ibrahima Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko déggool ci néeg boobu seet ak ak sata jox ma ko ñu waaj ñu lay néeg ba ba mu set maam Seera Fall ne ci néeg bi naan kër kër kër kër kër ma ju war a jege waxtu léeg-léegi sëñ bi ne ko Ibra Fall gis nga seetale gi mu ne ko Mbàkke ñi ngi koy bëgg a gis de waaye du ne déet mukk du ne un um du daw ba yàgg sëñ bi ne ko Ibra Fall mu ne ko Mbàkke mu ne ko génnal mu génn mu ne ko yow rek laa doon jàngale sa taalibe dooma gàntu mukk Ibra Fall waaye dinaa def ci yow loo xam ne dana yéem ñu fii ak ñu fële am na it ku mas a yéem si maam Seera Fall ñëw ne sëñ bi dama bëgg nga def ma ni nga def maam Seera Fall sëñ bi wuyu ko ba muy ñetti yoon kooko soññ ko sëñ mu ne ko diw mu ne ko mbàkke mu ne ko Ibra Faal ni ma ko def fàtt diw mu ne ko mbàkke mu ne ko Ibra Faal def naa ko ci mbaq goo xam ne sànni naa ko ci asamaan yi foo xam ne su ma ci su su ma ko bëggoon a jëli di ko di indiwaat ci suuf ba yowmal xiyam du agsi ci suuf diw mu ne ko mbàkke mu ne ko ni ma def Ibra Faal fàtt na a ne te loolu li ko ko may mooy xam sëñ bi xam ne kii du am xel a ciy jariñee fi mu ne ak murit du xel mu rafet dong dong de da ngay joxe sa bopp ñu defar la moo tax sëriñ Tuubaa sax dafay wax ne suñu yonent bi asbil sutuur yi aslih umur yi kassir xuyur yi bilaa kidaay waaw di ko ndax dafa jox léppam yonent bi nee na ko soo delsi woon sax dangay jël sa ndëggul tànk lu tedd la yow rasulillah ma jël sama leex bi nga teg ko ci di di ci jaar dem yow yow sa sallallahu alayhi wa kon yoon yu nag du toog dong nag defaru rek di xoole déedéet li fi nekk lépp dañ koo liggéey ba yoon wi agsi fii moo tax keroog ba jumaa ji noppee Cheikh Mamadou Fadal yëkkati junni ne ku ma wax kuñ ku ñuy tudde soorool bi gaa yi wax ba doyal mu ne ah tudd ne ak sama baay Ibra Fall moo tax maam Seera maam Seera Fall Serigne Fallu daf koo déggoon waaw ndax xam na ne lépp ak taalibe la kon yéen ndaw ñi loolu rek laa leen di dénk lu leen waaye mën a wax sax leen ci taalibe na ngeen tax gumbalu ndax jamono ji ñu toll soo amee complexe rek doo dem te baay fallisme suñu ko waxee moom mooy dëgg-dëgg mouridisme kon na ngeen ci góorlu Baye Fall nag day set day sell comme maam Serap Fall ni mu sete woon sell ni mu sende woon ndax moo gënoon a sell ñëpp dàq jaamu yàlla ñëpp ndax boo jàngee alxuraan nag daf naan la wala sikrullahi akbar wallahu mu maa tasnauna fu mu toll na turu yàlla di nekk ci gémmiñam ndax na salaata tanha anil fahsaay wal munkar foofu la aaya ba tàmbalee kon loolu lañ leen ci dénk ngeen dolli ci góor góorlu képp ko fi indi ajo yàlla na ko yàlla faj defal ñu tawféex ak taysiir zahiran wa batinan wa batinan bi barakati cheikhna ahmadul xadim barke alquran barkeb xasida yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa jërëjëf sëriñ Modou Mbacke la Zanba kàddu yi amati na solo <coughs> waxtaan yi muccati na waaye tam dàggee bi gënati naa ñëw alhamdulilahi rabbi alamin ba nga xamee ni la fi mag ñi bàyyi woon ay ndaw a ngi fi yoo xamante ni ñoo ngi koy sàmm ca sàmm nag dañ caa tere yii réeral ak ruural waaye itam dañ caa fonkitam jofal ak reggal lii bokk na ci li nga xamante ni sàrti sàmm la ca kenn ku nekk ku baax ki wax na ni ab sàmm la ci ëllëg daanu ko laaj li muy sàmm nam ko doon sàmme kon ndaw ñi nga xam ne suñu borom boole na la ak ñoom kuy wut sëriñ bu mat sëriñ yaakaar naa su gisee sëriñ muudu taxawaayam ak ak taalibeem ba gëm sëriñ Touba futteekoom doon ab doon ab Baay Faal ni ko way juróom bi di Cheikh Madou Fadal Mbacke defee dana doy sëkk di ab sëriñ kon ñu ngi santaat di gërëm di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wëram ba lépp li mu bëgg a liggéey sëriñ Touba. fas ko liggéey sëriñ Massamba mu defee ko nu kawe njortam yàggal koog way juram di Cheikh Madani faadil ak suñu way jur soxna Ami Diané ak mboolem ñi nga xam ñoo ne ci kër gi ñëpp bàyyiwuñu kenn di leen ndokkee ci di ñaanal baax a baax kon mbokk yi sëñ Mout ñëw naa ñun ci sëriñ Touba ak màggal ñëw naa ñun itam ci sëriñ Massamba digganteem ak sëriñ Touba waaye itam taxawaay bi nga xam moom am na ko ci sos daayira bi nga xam mooy xidmatul xaddiim lépp nag liggéey ak jaamu yàlla taxaw ci xidma rek. taxaw ci xidma jooju ànd kooki ndaw ñoo xamante ni lim leen wax mooy ne ñëpp roy maam Cheikh Ibrahima Fall ci lépp lu Cheikh Ibrahima doon doxee muy suñu doxiin kon sant nañ ñëpp gërëm ñëpp bàyyi daam mi ñu nekkoon ci wàllu caméra bi Papa Alassane Mbow soxna maam Diarra Gomis sant ñëpp gërëm ñëpp soxna maam euh, soxna Awa Fall suñu soxna si soxna maam Bousso ñoom ñëpp ñu sant leen gërëm leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.